lu jëm si historique projet bi gannaaw sëñ Moustapha Yacine Guèye bi muy amee ndigal sëñ taxa euh, daf fi juma si la ma consulter amoon yéen ma ànd kook moom. ba ma waxee bi mu ñëwee sur le site après moom li mu njëkk a wax mooy su ma mënee euh, inspiré wu su mosquée bi nga xam ne moo nekk euh, Dubaï te un architecte nommé Dino Baron moom moo defar mosquée Hassan II. roi Hassan II mettre en contact ak euh, roi bi Cheikh Zayed mooy Mosquée Blanche bu nekk fële Abu Dhabi. un œuvre comme ça doo ko jël rek dafa euh, copier ko réplique après indi ko feneen moo taxoon laata ñu ma si def dara dama dem ba toog moom mu kontaan si loolu tamit après mettre ma en contact ak euh, wax ma historique projet bi fi mu tàmbalee ba ba ba projet bi nee na ma sax quatre ans la def étude bi uniquement étude bi si ma mettre en contact ak service technique bi. léegi après si lañ tàmbali les les premiers esquisses ñu koy defee après ñu génnee les ma am am na 4 minarets ndax mosquée bi 66 mètres la sur 40 am 4 minarets minaret bu su nekk hauteur am 4 kii mètres am coupole centrale bi autour à partir intérieur salle de prière bi ba si sommet coupole centrale bi muy 29 mètres am yeneen 10 8 coupoles yoo xam ne moo nekk salle de prière bi. am yeneen six coupole yoo xam ne moo nekk salle mooy si si si yi nga xam ne plan bi noonu lañ ko tëggee ba mu noppee nag après si laa soog a ñëw Sénégal nga xam tout ce qui est structure moom fii lañ ko defee. ñu jóge fa dam tapis bi si Iran lañ ko defee nga xam ne pixel bi rek 1200 la tapis bi si boppam ni ñu ko liggéey sot sottee ndox ndox mi du pénétrer loolu moo tax ñu choisir euh, tapis boobu lustre bi tamit Iran lañ ko commandé li nga xam ne mooy mooy giri giri barrière bi nga xam ne mooy séparé fi kilifa yi nekk. kooku moom Chine lañ ko commandé li si njëkk def mooy gannaaw bi muy laajee situation géographique bi ñu wax ko mu laaj ñu température bi l'effet du soleil bi pour xool euh, ak couche du soleil bi rayonnement soleil bi à partir intérieur ndax loolu lépp da si am solo pour mosquée bi bañ a tànga parce que dama koy ne Porokhane bokk na fu gën a tàng Sénégal waaw loolu yëpp euh, tenir nañ si compte autour sous plafond bi euh, loolu tamit da si am impact ak autour doom bi ndax soo xoolee mosquée bi nii même climatisé wuñu ko waaye foo taxaw moom air bi day